صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع العبس والسفر bayitu bis bi juróom-ñeenteel bi jukki nu ci ànd ak Serigne Fallou Galass Sylla mbokk yi bayitu bis bi tey ñu fas yéene ñëw àndaat ak yéen lan la Sëñ Tuubaa lahu taala rujuhi min idaaya ila daari salam lati tubna bi tajdiidi ana lan la Serigne Touba nam ma wax ci bobu bayit Yalla mi nga xamne mo dawalon sama dem dogalaat na sama wat lahu taala rujuhi wat fan min idaaya joge ci noon yi min idaaya joge ci noon ya ila daari salam. dana tagok noon yi jóge ci ñoom wat daru salam su ma delluwaatee Daaru Salaam googu nga xam ne tub naa bi tëj diidi danaa ko tabaxaat ak beneen tabaxaat gu bees kon li ngay teg tegtale ni sëriñ bi lépp lu tubaab yi mas di def ci moom da ko bàyyee ak yàlla waaye xamoon na ak demam xam ak delseem xam li mu jëlee ci dem gi loolu waxoon na ko ba muy départ maa ngi dem te ñëw damay liggéey ni yàlla ba mu dikkee am na lu mu waxoon ci mag ñi ne leen cey bu ma demutoon wallaay bu demutoon dara da ko jar moo tax bi mu demee ba liggéey bi mat amul lenn loo xam ne tubaab yi mën nañ ko ci moom wala ñu def ko ci moom dogalub yàlla bi rek la daan ànde moo tax mu wax na nag yàlla dogalaat na moom mi dogaloon samag dem dogalaat na sama tàggoog tubaab yi jóge ci noonu yi nga xam ne mooy gabon fu bon fii nga xam ne kenn mosu fee jaamu yàlla ku nit man mosu fi ni mu ko fi wéetalee danaa jóge ci ñoom nag delluwaat ci sama dëkk ba nga xam ne mooy daaru salaam ma fas ko yéene yeesalaat kon loolu Cheikh Mouhamadul Moustapha al waxoon ne li Serigne Touba wax ba ma teg ci sama bët li mu wax te tegaguma sama bët laa gën a gëm ndax faw yàlla dëggal la mu waxoon kon lépp lo dégg ne seigne touba wax nako bo boo ci tegagut sa bët jàppal aduna àdduna gut ndax bala aduna tukki dang ci tegg sa bët kon kenn du seigne touba ci mooy solution monde bi motax tax mu wax ne lahu taala rujuhi min idaaya ila dar salaami lati tubna bi tajdidi ndax seigne bi da matti baye bàyyi xel ay waxam euh limi wax ne seigne abdallah di wax ne bala ga set xarit ba andando setal ko xamne waxi tayam ak jeufi ëllëgam ñoy yam serigne bi limi wax tay lum yag yag li mu wax bi mu amee fukki at ak juróom moo la mu wax ba mu amee juróom-ñaar fukki at ak ñeent ci njaareem ñoo yem loolu la Cheikh Ibra Fall waxoon ne sëñ Tuubaa de bu ma xamee lu dolliku ci moom ci bi bi muy doon tuut tànk bi jaaw lay doon waaye lu bi jaaw xawma ko lu dolliku ci moom ndax noonu la màggaale moo tax ay waxam toujours boo ko dee xool amut jenn waxam joo xam ne dana di moroom ja ba noppi li muy wax nag.